dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyandoo Pape Mawa Diouf directeur général bu ASPT maanaam agence sénégalaise de promotion touristique la ñu xëy fekk ci yéene kaay gi di réew mi quotidien mu xëy fàngam fi lu mu fi waxul ci wàllum tourisme ak wàllum hôtellerie maanaam daf ko fàtte daat nay wax ne mille milliards yi nga xam ne état bu Sénégal génne na ko lu toll ci soixante-dix-sept milliards génneel nañ ko waa tourisme ndax jafe-jafe yi nga xam ne maanaam moom la làmbool te woppi coronavirus daal di ka koy tekk Pape Mawa Diouf journaliste yi réew ko yan jafe-jafe moom ngeen am yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci wàllum tourisme lam ko xamal mooy jafe-jafe yi bëri na te covid bi moo leen ko tekk waaye nag am nañu ay feem ak i plan stratégie yoo xam ne dana ñu fexe ba daal di koy lijjanti daat nay wax ne lu toll ci cent mille emploi yoo xam ne am na ci biir tourisme wax na njariñ li nga xam ne tourisme am na ko ci biir réewum Sénégal ndax ne na at ma jot lu toll ci benn million bu toftale juróom benn téeméeri junni ci ay touristes yoo xam ne danañu dugg ci réewum Sénégal moom Pape Mawa ay milliards yi milliards la tourisme di dugal ci réew réewum Sénégal taskatu xabaar yi laaj ko nako ko maanaam ñaata mu ne lu toll ci trois cent milliards yoo xam ne tourisme dana ko dugal ci réewum Sénégal yéen a kaay gi de la mu xëy di ñu xamal lan ñu jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal am na ko ci lu jëm ci woppi coronavirus ak nag tolof-tolof yi ci wàllum économie loole tax na njiitu réew mi di président Macky Sall daal di nag dakkal li nga xam ne mooy vacances gouvernementales yi l'info mu xëy di ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay wax ministre yi ñu daal di rendre compte ci lu jëm ci force Covid 19 bi maanaam rendre compte député yi leeralal leen mbir mi maanaam dërëm bu nekk fan la dugg njiitu réew mi di président Macky Sall bi de laas nee na ji maa ngi teg ay feem xool économie réew mi nga xam ne dafa nërmeelu ana nan lay def ba daal di ko yëkkati li nga xam ne yëkkati nañ ko ci réew mi di couvre-feu bi tax na agression yi jamono ji mel na tuleeg male maanaam agresseurs yi jamono ji commencé nañ di def seen liggéey ndax ci Bourguiba di jet d'eau di boulangerie jaune agresseurs yi def nañ a kaay gii di réew mi ko di jeex xëy ci contrat bi nga xam ay luqi njuur contrat boobee dox diggante entreprise turque ak état bu Sénégal jëm ci bateau électrique bu turque bi nga xam ne dañu ko luye réewum Sénégal ci lu toll si juróomi at toll ci fukk ak juróom-benn ci ay milliards journal bi dikk na si ak luqi njuur ak lëndëm yi nga xamante ni daan na cay am ak fukk ak ñetti milliards yi nga xam ne maanaam xaajale na réewum Sénégal ak nag liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci port Assane Samb ñëw na ci yéenekaay gi de Les ko mu xëy di ñu xamal lan ñu fulla mooy jaay Dakar ndax Union européenne ñi nga xam ne ñoo jël seenu feuille jël seenu bik maanaam rëdd réew yi leen neex ngir ñu bañ a dugg ci union européenne loole nag waa Gabon ñoom dañu koo ñaawlu tax na ñoom tim seeni frontière tëjal nañ ko waaye union européenne maanaam jamono ji Gabon ñoo ngi defante ak union européenne kaay mi ko di moom tim mu xëy ñu xamal naan ñu du Gabon rek ñooy defante ak union européenne ndax ni ko Gabon doxalee noonee la ko senegal Sénégal doxalee senegal jamono ji ñoom tim lankal nañu waa union européenne ngir nag ñu daal teer ci Sénégal ci biir yéen kaay gi ñu fekk fi Alioune Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk lu soxal wàllum dem bi ak dikk bi si jaww wu ci la mu xam le nee na stigmatisation bi nga xam ne union européenne ñoo ngi koy def réewu afrique loole la ñu war a teg si suufa maanaam bodde gi te loole amul benn njëriñ yéen a kaay gi di direct news xëy ñu xamal la ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk king fat place mer nañu ba maara ndax ki nga xam ne mooy njiit la lu toll ci téeméer ak juróom-ñeen fukk ak ñaar ci ay liggéeykat maanaam la ñu chômage technique jamono ji ñoo ngi wayang wayangi te bokkut ak li nga xam ne moom la njiitu réew bi di Macky liggéeykat yi nag jamono ji ñoom ñoo ngi naqaru injustice bi nga xam ne maanaam am na fa ba pare di dànkaafoo yéen kaay gi de Les Échos ñu fekk fa Souleymane Téliko mi nga xam ne moo jiite magistrat yu Sénégal moom na xëy na di wax ay dëggam nee na lu jëm ci chambre africaine extraordinaire bi nga xam ne maanaam moo atte Hissène Habré bëri na ay manquement yoo xam ne am na ca te Hissène Habré nag am na sañ-sañ maanaam am projet boo xamante ni bu tolloo lay doon daat nay wax ci lu jëm ci xeex bi nga xam ne moo am diggante liggéeykat yi nekk ci wàllum justice ak ministre Malick Sall daat nay wax ne ministre maître Malick Sall dafa war a ñi nga xam ne maanaam ñooy liggéeykat yi yi réew mi ko di jëm mu ñu xamal ñu liggéeykat yi nekk ci wàllum justice ñoom na xàppati war na ñaari fan yoo xamante ni dañuy dem ci ab grève la ko waral mooy li nga xam ne bindoon nañ ko xaatim ko dégg ko ak état bu Sénégal ba léegi nii France daal di xëddeen te ñoom jàpp nañ ne ministre Malick Sall lépp moom moo ko bloqué yéen kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa aar la ñu bokk ak ñoo lànk ñoom nag ñoo ngi ñaawlu contrat bi nga xam ne moo dox diggante Sénélec ak ak lii ba pare ñuy sàkku contrat bi ñu daal di koy xoolaat maanaam ñu daal di koy renégocier yéen kaay gi di Stades xëy ci match bi nga xamante ni jëm jamono ji ñu bari ñoo ngi koy xaara diggante Manchester City ak Liverpool naam sax Liverpool jël na championnat bi waaye journal bi nee na tey jii ñoo ngi xaara Sadio Mané mu maat maate ñi nga xam ne ñooy waa Manchester City yéene kaay gi nee na am na beneen match boo xam ne ñoo ngi koy xaara diggante Real de Madrid ak Getafe ndax bu Real Madrid gagné Getafe ginnaawam dina féex ngir mu jël li nga xam ne mooy championnat bi